ay reer da ci toog ay cere yu am solo donc yooyu yëpp ndekete mbugal la parce que yaa ngi kontaan ci loo xam ni ah yàlla subhaanahu wa taala amalu ko amalu ko amalu ko benn yoon foo xam ni daf ko woote wala daf ko santaane wala te bi sallallahu alayhi wa sallama ci wàllu jaamu yàlla yaani amul benn yoon boo xam ni indi na ko war a santaane na donc mu bu nit ki ida farixa al insaan bil baatil nit ki bu fekkee ni dafay bége ci loo xam ne lu bon la wala ci loo xam ni erreur la wala ci loo xam ni euh, réer la mu ni fa haadihi uqubatu mu loolu kat nekk na mbugal ci moom li annahu ida farixa bil baatil fa lan yataxaawal anhu mu ndax ki nga xam ni dafay bégee lu bon du ci bëgg génn ki nga xam ne dafay bëggee lu bokk lu bon dafay bëggee réer lu ci génn mukk moo da gis koo xam ne dafay taxaw ne ni man Baay Faal di ci kontaan di ci di ci bëggee di ci di ci def ay anam wane ni moom li mu nekk ni yànn na ci dee kooku xam nga ne bëggu cee génn kiy bëggee lu bon bëggu cee génn ah yal yàlla musul te sàmmal ñu boppam donc borom téere mu ni haafihi صفات أهل الجاهلية والله جل وعلا نهانا عن ذلك فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا yàlla subhaanahu wa ñoo tere di sax nuru nurulu ñi nga xam ni ñooy waa ceddo ga daf ñoo tere di nuru nurulu waa ceddo ga ndax lii moom moo doon màndargay waa ceddo ga bokkoon na ci lii maanaam di am wuute ci seen diine di wuute seen si seen àddina ba pare nag di kontaan ci li nga xam ne mooy réer ga ñu nekkoon loolu moo tax yàlla subhaanahu wa tere ñu di nuru nurulu ci màndarga ñi nga xam ne ñoo doon waa jaahiliya yàlla subhaanahu wa taala di wax ci suratu ruum verset 31 ak 32 fanweer ak benn ak fanweer ak ñaar mu ni wala takunu min al mushrikin bu leen mel na bokkaalekat yi min alladina farraqu diinahum ci ñoom ñoo xam ni dañoo tàqalikoo ci seen diine wa kaanu chia ba pare ñu nekk ay pàcc ñu nekk ay groupe wa qaala taala yàlla mu kawe mu ni in alladina farraqu diinahum wa kaanu chia ñi nga xam ne ñoom ñoo tasaare wala ñoom ñoo juyoo ci seen diine wa kaanu chia ba pare ñu nekk ay groupe mu ni lasta minhum fii shay amoo lenn loo doxalante ak ñoom maanaam so génn nga ci ñoom ñoom it comme génn nañ ci yow mu ni innama amruhum ila allah ñoom kat nag seen ay mbir lépp mi ngi ci yàlla su loxo yàlla subhaanahu wa taala thumma yunabbi'uhum bima kaanu yafaaluun yàlla subhaanahu wa taala di leen nag wan la nga xam ni wala di leen leeral la nga xam ni ña ngi ko doon def suratul an'am verset 159 wa anzala ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallama mu ni yàlla su borom téere bi Cheikh Fawzan xafidahullah yal na ko yàlla eh, yokk taxaw ak dëgëral ko te may ko mujj gu rafet mu ni yàlla subhaanahu wa taala dafa wàcce laaya bi ci yonentam laaya bi mu ni shara lakum min ad diini maa wasa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayka wa maa wassaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diina wala tatafarraqu fiihi suratu shura verset 13 fukk ak ñett yàlla subhaanahu wa taala mu ni charaa lakum tërala nañ leen min a diini ci diine comme la nga xam ne moom lañu joxoon nu alayhi salaatu wasalaam te mu dëppoo ak la nga xam ni moom lañ la jox yow moom lañ la révélé yow ah? mu dëppoo ak la nga xam ne moom la ñu joxoon ibrahim alayhi salaatu wasalaam ak muusa ak isa lañ leen santoon mooy lan an aqimu diina ñuy taxawal diine wala tatafarraqu fiihi te ñu bañ a am benn juuyoo ci li nga xam ne moom mooy diine borom téere bi mu ni haada huwa alladi sharaahu llah lii la yàlla tëral iqaamatu diin alladi huwa diinu nuux wa ibrahim wa muusa wa isa wa muhammad sallallahu alayhim ajmain wa huwa diinu al anbiya jamian lakin dakara haulaai li annahum afdalu rusul wa ulul azm alxamsa nuux ibrahim Moussa Isa Muhammad sallallahu alayhim hum ulul azmi wa afdalu rusul yàlla borom téere mu lii moom mooy diine yàlla bi maanaam taxawal diine te bañ koo cëxat-cëxatee wala te bañ cee indi tàggalikoo ak ak beddi konte yu demee noonu mu ni nag lii moom diine nuux alayhi salaatu wassalaam lii moo doon diine ibrahim loolu moo doon diine Muusa loolu moo doon diine Isa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhim sallallahu alayhim ajmain mu ni te lii nag moo doon diine bépp yonent bu yàlla mosa yónni maanaam tee ci diine te bañ a tàqalikoo loolu moom moo doon diine taxawal diine te bañ cee ko loolu moo doon diine bépp yonent bu yàlla mosa yonni mu wante boo gisee yàlla fii dafa dafa tudd turu ibra turu nuux turu ibrahim turu muusa turu isa ak turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ndax ñoom ñooy ñi gën ci yonent yi ñoom ñooy ñi gën ci yonent yi te ñoom la ñuy woowe ulul azm ulul azm maanaam juróom ñi nga xam ni ñoo gën a fes ci yonent yi wante lii daf leen fàttali rek maanaam dafa tudd turu ñi ndax ñoom ñoo gën a fes donc loolu ça ne veut ñoom rek la mais ñëpp ñoo xam ne ay yonente lañu yàlla subhaanahu wa taala loolu la tëral mu nekk seen diine wa axada allahu al mithaaq min jamii rusul yàlla subhaanahu wa taala jël la ñuy tudde ko euh, euh, covenant maanaam jël li nga xam ni mooy ndigaale boo xam ne yàlla daf ko am ak bépp xeetu yonent wa ala xusuusi ala haula il xams wante moo spécialement ak ñi nga xam ni ñooy juróom ñi qaala allahu taala yàlla subhaanahu wa taala mu màgg mi mu kawe mi nee na wa id axadnaa min annabiyiina miithaaqahum keroog ba ñu jëlee wala ba ñu jëlee ci ñi nga xam ni ñooy yonent yi seen covenant hmm? wa minka jële ko ci yow maanaam la nga xam ne dañ koo d'accord jële ko ca yow muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min nuuxin jële ko ci nuux wa min ibrahim ak ci ibrahim wa muusa wa isa ibna maryam ak jële ko ci isa ibna maryam wa axadnaa minhum mithaqan galida ah ñu jële ci ñoom wala ñu am ci seen diggante li nga xam ne moom mooy agreement bu bu bu bu kawe ah mu ni wa jamiu rusul diinuhum waahid yonent yi ngay gis yëpp ñoom ñëpp seen diina benn la ah mu ni umuman ñoom ñëpp nag seen diina benn la mu ni mooy lan wa huwa ibadatullah waxdahu la sharika lahu muy jaamu yàlla moom dong moom kott moom kese waxdahu laa sharika lahu te bañ ko booleeg lenn ak lu mu mënti doon muni ni haada diin jamiu rusul umuman lii nag moom mooy diine yonent yi yàlla yónni yépp mu ni wal xamsa xusuusan ak juróom yii nag boo leen bëggee fegg donc wante ñoom ñépp seen diine loolu la mu al ixtilaaf wala tafarruq mu ni seen diine maanaam diine yonent yëpp benn la du am benn yoon boo xam ne dana nangu li nga xam ne moom mooy paccoo wala li nga xam ne moom mooy euh, paccoo wala li nga xam ne moom mooy euh, ixtilaaf ah mooy sépa séparé ah, wala maanaam tasaaroo du ko nangu mu ni yakun li kulli waaxidi diin mu ne du nangu kenn ku ci nekk di toog sa sa sa sàkket di am sa diine bopp wala li kulli taifat diin wala du nangu kenn groupe bu nekk am sa diiney bopp wa innama diinul jamii waaxid wante dafay bëgg ñëpp yore benn diine mu ni huwa diinullah mooy diine yàlla subhaanahu wa taala ala mooy diine bi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala sant bépp min def comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala waxe wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yabuduun yàlla nee na binduma nit ak jin binduma jinne ak nit ludul ñu jaamu ma donc lii baarakallahu fiikum foofu lañ ko yëte yëkkatee tey ci jataa bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu warsagal ñu ñu tajawaat fi daal di eggale li nga xam ni mooy ñaareelu tomb ci dundu jaahiliya bi nga xam ne dañ doon am taqali ko ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu àddina te taqali ko boobu ñoom ñu nekkoon maa jaahiliya da nga gis ni tey jullit ñi nekk nañ ci saf nañ ci sàpp wala iyaadu billah ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu sàmm ñu ñu suñu diine sàmmal ñu suñu ay njaboot sàmmal ñu suñu ay wayjur wërsëgal leen te wërsëgal ñu ko muj bu rafet mujj boo xam ne mujj alquran ak tawxiid la ci li des suñu dund ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu ay woy jur ak suñu ay mbokk yi nga xam ne nekk nañ ci réer yal na leen suñu borom subhaanahu wa taala wan leeru tawxiid yal na leen yàlla yal leen suñu borom subhaanahu wa taala boole ñun ñëpp wan ñu leeru sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wayafal ko suñu ay dënn ñu nangu ko wayafal ko suñu ay jëf jëfe ko waye ko suñu ay wayafal ko suñu ay làmme ñu nangu ko di ko woote te yàlla subhaanahu wa taala moom rek moo am tawfiq wal ilmu inda allah wa salli allahuma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain